salaamaaleykum Khadim Soung la Belle Allure Couture di international designer sénégalais. Euh, liggéey bi je pense que mën nañu wax euh, dugg nañ ci à vingt ans après bi ñu jeexalee suñu école fréquenté milieu mode bi fréquenté de très grandes maisons de couture yàlla def ñoo moon passion wu aussi design passion wu ñaw yàgg nekk suñu passion ci lañ ko intégré xam ni yoon la bu ñu mën a engagé. mën ci andi benn touche bu nouveau ñu góorgóorlu ko def def ko suñu métier ba tey yàlla di ñu ci teral ba ñu dem ci fu bare bari waaw xam nga comme ñuy wax gis naa quelque part ñu wax choisis le travail que tu aimes comme sa tu n'auras pas à travailler un seul jour du caageen da nga dul def dara mais dafay nekk yaa ngi def sa élément yaa ngi def li nga bëgg yaa ngi def li nga sentir donc bu yàlla defee nga am passion ci benn affaire bëgg ko loolu boo ko tarbiyoo jàng ko rek dina dem ba notion bi nekk ci yow base bi nekk ci yow puisque passion bi mi ngi woon ci yow pour nga percer ci domaine boobu euh, day day day nekk lu jàppandi. donc kon jeunes yi nañuy déglu seen bopp ba xam euh, lan la ñu war a gën a mën a suivre ñu nekk ci boobaa dinañ gën a gagner du temps dinañ gën a nekk ci seen élément dinañ gën a nekk ci seen euh, dinañ gën a nekk en l'aise ci. Euh, li ñu war a réussir te boobaa réussir dina leen gën a jege. waaw ba ñu nekkee xale bien avant sax ñuy euh, arrêté jàng bi dañu doon defoon ñu mënoon a dessin même à l'école souvent professeur dañu doon euh, woo ñuy dessiner ci seen tableau yi les leçons qu'il allait donner aux élèves avant que ñuy commencer. donc ci design boobu tàmm dessin ci lañ jàgg di rêvé di gis ay tenues di inspiré wu ci ay idée wu yoo am ne gisaguñ ñu sol ko ah des fois ñu mu inspiré ñu à travers un film ñuy dessiné ba am ay catalogue yoo xamante ni yu bari la ah, loolu inspiré ñu aussi ñuy dem ci maison de couture yi doon leen ko jaay ñu gis ne bu ñu demee day nekk lu leen impressionné ñu si gagné as tuut loolu nag moo ñu gën a influencé ba ñu xam ne affaire bi. am na ci mën nañ ci xam nañ ci loo xamante ni am na valeur mën na nekk dara donc euh, ci lañ loolu daal moo ñu gën a motiver parce que xam xale buy def dara rek gis mu impressionné ay mag da pare moo mën ci am weccit loolu da koy change loolu moo ñu gën a xëcc ci affaire bi. en 2014 lañ def suñu premier défilé au King Fahd Palace c' était le 14 novembre 2014 c' était en direct aussi yàlla def bi ñu ko defee c' était il y avait 21 mais wax dëgg fa yàlla ñu am ci satisfaction boo xam te le lendemain suñ euh, noo ñu gënoon retenir ci défilé bi ak collection bi gënoon impressionné nit ñi ñun ñoo ko fa présenté woon mu nekkoon la paix en Casamance je pense que ba léegi moo ngi ci net bi donc suñ premier défilé bi ñu ko defee ba pare gis satisfaction ak retour bi ñu am ci nit ñi xam nañ ni kon li ñuy def ni ñu ko yàgg bëggee ni ñu ko yàgg tarbiyoo euh, am nañ preuve ni buñ ci góorgóorloo mën nañ ci àgg fu gën a sori. bon comme on dit l'inspiration c'est la chose la plus infiltrée mais nit ki quel que soit alpha environnement am ak euh, environnement en général ak gis-gisam ci àdduna loolu mën mënul ñàkk influencer ni muy foogee ni mbir nii la war a mel donc nag ni ku nekk sa éducation ak sa environnement ak sa paysage léeg-léeg tuuti influence su euh, sa gis-gis li nga jàpp ni moo correct loolu moom mooy nekk sa sa sa sa ligne de conduite ci lépp looy def rek loolu mooy tax nga mën ci am benn position bu équidistant ba nga jàpp ni mbir bu correct nii la war a mel eh, te nga jàpp ne nag liggéey booy liggéey war nga koo liggéey mu sophistiqué ba amul kenn kenn ku koy tiim mën ci joxoñ un défaut je pense que loolu boo ko defee comme sa baromètre quel que soit alpha bépp article bu produire rek eh, di nga ci am satisfaction te dina aw yoon